ndaw ñi ci wàllum santé de la reproduction ak planification familiale ak rajo Afia FM ñoo leen di may biile émission ñu fas yéene ci nag waxtaane njeexitalu mbas mi ci wàllu santé de la reproduction ndaw ñi maam Saye Thiam Seck dina ci dalal Dame Ndiaye di coordonnateur ANG SRAJ Bassirou Samb di ab relais communautaire waaye itam maa jigéen Ndiaye di sage femme ci Afia FM 93 point 0 na ñëpp jóg ñu daan ko mën naa ne asalaamaaleykum mbokki auditeur rajo Afia FM ñu leen di nuyu di leen ziar di rafetlu seen sa foog faale rajo Afia teew fii ci beneen émission boo xamante ni liñ si fas yéene waxtaanee mooy njeexitalu mbas mi ci li nga xamante ni moo di uh, wàllum santé de la reproduction des jeunes et des zado ak wàllum PF émission bi nag rajo Afia ànd si ak ñi nga xamante ni ñooy kuréel gi ëmb ndaw ñi nga xamante ni dañuy yëngu si wàllum SNAG maanaam alliance nationale des jeunes pour. Uh, Euh, la santé de la reproduction des ados et des jeunes ak wàllum euh, planification familiale ni ngeen déggee ci bande annonce bi may dalal Basirou Samb di relais communautaire waaye ma jigéen Ndiaye di euh, sage femme ak ki nga xamante ni moo di Dame Ndiaye moom mooy coordonnateur alliance nationale euh, jëm ci wàllum santé de la reproduction ak wàllum planification familiale ñàkkul mi ci yoon bi dinañu dab ci biir waxtaan bi kon ñu tàmbali yi ak ñi nga xamante ni ñoo fi teew mi dooree ak ma jigéen auditeurs. salaamaaleykum. Mhm. salaamaaleykum. Mhm. ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam. Mhm. Euh, di rafetlu invitation bi maam Sey. waaw euh, di yaakaar na dinañ indi suñu contribution ci émission tey bi. waa kay ñu ngi nuyu itam suñu naataangoo bi. di ko jaajëfal moom ma euh, ma jigéen Ndiaye di rafetlu aussi teewaay bi ci plateau bi Basirou sàmm moom miin na plateau bi ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo. maa ngi lay nuyu maam Say di nuyu auditeur ak auditrice su Afia FM yëpp. Mm-hmm. ki ma bokkal jotaay bi tey ma jigéen. di mm-hmm. ñaan yàlla lépp luñ fi waxtaanee rek yàlla na doon njëriñu askan wi. Mm-hmm. mu ngoog kon damay tàmbali ak uh, ki nga xamante ni mooy di ma jigéen li ñuy waxtaanee mooy wàllum santé de la reproduction ak PF ak njeexatal bi nga xamante ni jàngoro coronavirus am na yow mi nga xamante ni yaa nekk ci hôpitaux yi di liggéey di fàttali ni yaa ngi ci centre Elisabeth uh, Diouf foofu nga nekk uh, def constat lan lañ mën a nemmeeku jamono ji ci wàllum euh, santé de la reproduction wala sax si wàllum PF mbas mi lan la fa indi. waaw Mame Seye euh, ñu ngi rafetlu sa question. Mhm. Euh, mbas mi nag comme ni ñu am habitude di ko waxee. Mhm. mu ngi fi te réalité la te terewul ne service yi continuité yi dafa war a am. Mhm. pàcc bu nekk ñu fay nekk di liggéey. dañ leen fa teg pour ñu liggéey donc mbas mi terewul nit ñi ñu ngi liggéey nit ñi ñu ngi def seen wareef ci liggéey bi. Mhm. SRAGI nag moom dafa nekk loo xam ne surtout côté PF bi ak mbas mi n'empêche am na structure yoo xam ne nit ñi ñu ngi ñëw. Mhm. mais am na structure yoo xam ne nit ñi dañoo wàññeeku affluence dafa wàññeeku. comme comme comme yan. bu comme au début vaccination bi am na partie yoo xam ne. dafa manqué woon dafa nit ñi demuñu woon. Mm. parce que dañ doon ragal dem exposé seen doom yeeg yooyu. Mm-hmm. mais yeneen euh, yeneen ki services yi comme PF e CPN yooyu yëpp ñu ngi ñëw mais bu ñu leen commencé conscientiser di def ay causerie di leen wax ne dañoo war a ñëw ñàkk xale. Mm-hmm. léegi nag am na changement. Mhm. mais amoon na ay jëmmi jamono ñu doon bañ rassemblement yi euh, ci wàllum consultation post wala prénatal yi CPN ni nga ko waxee ak ci wàllum PF loolu taxoon na jigéen ñu bari dañoo ragaloon euh, daal di daal di toog ci kër yi. waaw loolu tam am na jigéen ñu bari dañoo ragaloon dem hôpital. Mhm. parce que ñu ci bari au début da ngay ragal boo demee nga jëlee fa dara. Mhm. fekk tel n'est pas boo utiliser say mesure barrière boo demee di nga am au moins lu la protéger. Mm-hmm. mais ñu si bëri dañ ragal dem boobu noonu ñenn ñi dañuy rabattre ci pharmacie bi jënd seen ay pilule. Mm-hmm. ñenn ñi dañuy obligé toog. toog boobu ñuy toog nag day am ay affaires yu ne si suuf parce que di nga toog d'accord mooy conséquences yi. mooy conséquences mën nga ñëwaatul si conséquences yi nga xamante ni war na ko mën a indi. waa conséquences yi su fekkente ne nit ki dafa war a dem rendez-vous am demu ko bu boobaa mun na ci jàpp grossesse mun na si jàpp grossesse. de même que nit ki tam mun na war a dem rendez-vous parce que planning bi du nga ñëw pikiiru wala nga ñëw naan garab jënd la say garab rek nga dem mm-hmm. wala nga ñëw ñu defal la contrôle dañ la war a seet de la tête aux xool sa tension mm-hmm. xool ndax amoo infection mun nga am infection nga bàyyi fa infection ba durant bi nga waree ñëw sa rendez-vous parce que bu dee 3 mois nga war a ñëw dañ la war a consulter xool ndax amul infection bu amee ñu traité ko mm-hmm. bu dee 6 mois wala 1 an nga war a ñëw rendez-vous tam dañ la war a consulter donc su fekkente ne ñëwoo te yaa ngi am infection mm-hmm. bu boobaa infection bi dafay gën a toog gën fa am doole mm-hmm. wa ilaa yow booy ñëw sax à la minute soit biir bu metti moo lay indi wala leneen fekk na yow foraale nga am na keneen euh, ku ñëw fekk suñu si plateau bi ñu bàyyi ko mu soufflé tuuti le temps que ñu introduire euh, Basirou Samb moom mi nga xamante ni ab euh, relais communautaire la ni ñu ko waxee ñoom boobu léegi wax nañ ko émission bi wees ñu ngi ci liggéey bi di ci def lu am solo waaye mu mel ni Basirou dafa am loo xamante ni juñoon nañ ko keroog mais sorewuñ si muy wàllum communication bi wàllum information bi dëgg la nit ñaa ngi joxe ay masque nit ñaa ngi joxe ay gel mais en dafa baax nit ki boo ko joxee masque ni ko kat masque bi nii nga koy takkee masque bi du pour sa poche masque bi du takk du pour sa sa sac wàllum communication bi est-ce que gisoo ni il temps quand même ñu évoluer tuuti. effectivement say xam nga bu ma dégloo léegi ñi nga xam ne ñoo féetewoo ci wàllu domaine santé bi tu nit ñi war nañu communiquer waat ak moom keroog maa ngi wax ci suñu plateau ni j'ai l'impression que les décideurs aujourd'hui ils la communication mm-hmm. tey Sénégal defe naa ni masque manqué wul gel manqué wul matériel euh, de prévention détergent yooyu manqué wul mais ce qui reste mooy il faut dire aux gens naka la ñu koy utiliser parce que tey ñi ngi séddale masque barki dem maa ngi koy wax benn xaar sa mber xaar man ko man damay toog ba yàgg ma est-ce que ça vaut le coup de continuer à distribuer des masques parce que tu en donnes beaucoup des centaines parfois par jour mais soo dellu see tu te rends compte que nit donc pour man il faudrait que la communication feebar bu njëkk dañ doon dute naa ndax am na léegi ñëpp xam nañu am na mm. même su dee am na quelque réticence mm. mais la maladie est là et tout xam mm. parce que tey xam nañ am na ñu mu dal am na tam ñu mu rey parce que dépassé nañ la centaine léegi ñu egg deux cent donc aujourd'hui dans nos quatorze régions mi ngi fi teew donc kenn waxatul ndax am na naa lan moo des quelle communication tenir au ci nit ñi pour ñu xam ni tey war nañu mën a prévenir et dans cette communication il faut intégrer beneen beneen parce que li mu wax léegi c'est important. Mhm. parce que tey quand on parle de centre de la reproduction des adolescents et jeunes je dis su ma jëlee exemple. planification familiale wala parler de sexualité de manière générale c'était déjà problématique avant cette maladie. Mhm. pour que nit ñi déplacé dem def suivi bi wala benn jeune ni non damay dugg ci euh, pharmacie bi jënd benn préservatif wala damay dem jënd pilule du lendemain wala mm-hmm. damay dem def yeneen type de planification déjà c'était problématique mm-hmm. nit ñi ñu ngi doon xeex ba amoon ci avancé mais tey avec feebar bi nit ñi dañuy am beneen crainte au delà d'être découvert mais crainte bi mooy est su ma demee je suis pas exposé à la maladie donc il est temps que rassurer leen nga ni les hôpitaux même yi nga xam ne sax am na fa ay malades yu fa ne y a un dispositif particulier qui est en place mën nga faa dugg ba génn te tu n'auras rien à voir ak ñi nga xam ne am nañu feebar. Hmm. donc loolu foog ñu rassurer leen ko mais beneen bi tam ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekk. muy sunu poste de santé yi centre de santé xam ni peut-être amuñu benn benn benn matériel yu gën a mag yi peut-être bokkul ak ñi nga xam ne ñi ngi dans les hôpitaux de niveau 1 ñoom it il que accueil bi mu important parce que toujours dañ doon déplorer accueil dans nos structures de santé tey nit ki ñëw dans l'hôpital ñëw peut moo xam lu ko fa mën a indi accueil bi c'est important il faudrait bien parler ak moom donc la communication elle est et je pense que les décideurs devront intégrer maintenant dans les messages yi ñuy jàllale wax nit ñi ni leen dem leen ci hôpital yi coronavirus feebar la mais am na yeneen feebar yu fi nekk. Mm-hmm. feebar yi nga xam ne am nañ ci avancé déjà ñi ngi ci nawet bi sibiru bi mi ngi ñëw. Mm-hmm. wax nañu programme planification familiale yi Sénégal avancé yi ñu am. tey bu ñu xefee bu feebar bi jeexee dinañu delluwaat ginnaaw te ce serait du temps perdu. Mm. donc il faudrait que ñu renforcer waat la communication dépasser l' information. surtout ci méthode yi gestes barrières yi parce que tey jii nit ñi doy na waar les masques les gens n'en presque plus. Mm-hmm. nuyoo bi nit ñi dañuy saafoon dama la exemple dama dem euh, lundi benn sam benn mbokk bu wàññeeku côté Ngaye Mexe quand je suis parti wàcc takk sama masque. Euh, génn ci oto bi génn sama gel def sama loxo ñëpp tourné di ma xool. Mhm. bi ma ñëwee mbokk yi ku ne ñëw bëgg ku ma bëgg a nuyu man la sawa nuyu ah waa Basiou ah yow nangam ak nang ñii de ah moom affaire tubaab lay jaay. Mhm. la fa nekkoon ci indi bu dee cent quatre-vingt-quinze pour cent bi takkuñu masque. Mhm. te pourtant feebar bi am na. nit ñi ñu ngi koy gis mais dañuy dem léegi kenn takkatul masque kon boo nuyootul sax ñu laa. mooy relâchement bi ñuy wax donc dañu autorité dañu wax apprenez à vivre avec avec le virus mais est-ce que loolu tamit du moom moo rey en fait combat bi parce que boo xee loolu mooy sénégalais yi def leen lu leen neex virus ki mi ngi noonu peu importe bu leen laal ak bu leen laalul yëpp. mais mais c'est là où se situe parce que sénégalais yi dañ jàppe apprenez à vivre le virus bi ñu ko déggee ñoom pour ñoom relâchement la. c'est ça moi je préfère vivre sans le virus mm-hmm. am na am aujourd'hui Sénégal dama ne bu ñu jëloon benn un mois ferme wala deux mois def port obligatoire de masque bu mu yem ci texte yi mais avec une benn suivi régulier gëm naa ne dina am résultat parce que aujourd'hui tout le monde spécial war nañu le port du bu ko man bu ma solee masque mais risque bi wàññeeku na mais jógewu fi mhm. ma ko solee nga sol ko on se protège presque à cent ah nit ñi ñu commencer takk masque yi wàññi sanfa d'autant plus que man sama crainte mooy la après tabaski parce que bu tabaski bi jotee 80 pour cent des personnes dañuy quitter Dakar. qui la maladie. c'est ça dugg partout au Sénégal. et là on risque de faire de faire euh, la maladie un partout au Sénégal. Mm. d'où l'importance de faire une communication accélérée et pointue en cette période de tabaski pour éviter que le pire se produise. voilà surtout en cette période comme ni ko Bassirou waxee ma jigéen euh, tabaski approche gis na ni Dakar majorité bi dëkk ñu fi ñëpp dañuy dem alors que épicentre bi euh, fii la selon yow tey nan lañu war a mën a waxtaanee ak nit ñi ba bu nu demee dinañ def le tout ba feebar bi kenn du ko yóbbu fa nga jëm. maam say waa Bas ñi ngi rafetlu li nga wax léegi maam say man euh, dama ne nit ñi dem peut-être dañoo conscient wul ci feebar bi parce que. nii nii soo leen defoon boo leen doon def reportage reportage ci marché yeeg yooyu j'espère que commencé ngeen ko boo leen demee di ngeen gis ne marché yi kenn wanteer baa ngi fa comme temps normal. waaw ah fëgg jaay marché fëgg jaay wanteer baa ngi fa comme temps normal. donc man dama ne ku ne sa magub bopp nga kër gu ne am na maire bu fanee ne wala paa bu fa te maire bi bougé wul te paa bi bougé te fii xam nañ sénégalais cinq sénégalais yoo gis trois yi am nañ tension wala diabète wala ñenn ñi pataa nañ am nañ obésité mhm. donc yooyu yëpp ay facteur la yoo xam ne su si feebar bi ñëwee ci ñooñu lay gën a am gàllankoor wax na ko léegi sànq mu ne euh, période palu bi mais ñu ngi dem ci période palu mm-hmm. déjà nawet bi commencé na donc da ngay siburu nga toog sa kër soit nga dem pharmacie jënd sa ay garab di ko naan mm-hmm. toog sa kër mun mm-hmm. na bañ a doon siburu parce que danga ñu si bëri dañ naan su ma feebaree dem hôpital dañ naan damaa am feebar bi mais nga feebar dem hôpital ñu ne la dangaa am feebar bi ñu faj la moo gën nga feebar dem ba fi ngay yegg si yow euh, mënatuñ ci yow dara ba pare buñ leen wanoon cas grave yi nan lañ leen di def ni leen di intubé non doo ko yéene sax doomu aadama donc c'est du sérieux te cas yaa ngi gën a bëri buñ demee ba cas communautaire yi léegi ay 40 jëm kaw lay wax cas yaa ngi gën a bëri ba ñu ubbee frontières yi ñii dugg ñëpp ñu ngi leen di testé ñii positif donc na ku nekk jël sa sa responsabilité mm-hmm. man nee naa ngay tabaski ji yóbbul sa gel du affaire tubaab affaire wérgu yaram la. Mhm. parce que mentalité boo nee yëfu tubaab ngay def wala dangay ngay a nuyu nit ñi yow am na loo comprendre donc ku nekk am nga si sa part de responsabilité. Mhm. donc am na ci village yoo xam ne. du ma ne amuñu saabu amuñu kii de mais ndox sa déjà ça pose problème. c'est nga jóge fii dem tabaski ñëpp xam nañ ne dëkkuñu fii ñun ay bawal bawal yeeg saalum saalum yi kenn dëkku fi. Mhm. ñëpp dañuy dem tabaski ji mais nga dem tabaski ji tamit. fekk ñoo xam ne dara radalu leen ñu ngi ci jàmm ak salaam nga indi leen sërite boo xam ne du lu leen gënal tamit foog naa ne au contraire yow boo leen yóbbuloon gel yóbbul leen masque yow moom ngi dem tabaski ji yow yaa leen gën a mën a conscientiser sax expliquer leen ne leen kat feebar bi mu ngi Dakar comme ñun Dakar lañ jóge jee leen utiliser lii leen def li mhm. su ko defee ku nekk dina jël sa dina fi wàññeeku mais nii après tabaski moom pic dina am mhm. dina am te palu bi dina ñëw te dinañ dem fenn foo xam ne tamit waa ministère bu ñu bëggee lu leen noppal ku palu dañ la war a dépister parce que signe corona ak signe palu parfois c'est ça c'est ça c'est ça qui est grave dañ lay systématiquement nga bëgg nga bañ dañ la war a dépister dans les normes c'est ça parce que euh, booy xool signe palu ak signe euh, corona euh, benn la donc la plupart du temps bu la loolu dalee nga toog si sa ni damaa palu mhm. du ma dem hôpital am sax fit di utiliser ay garab yoo xamante ne garabu olof la pour mhm. faj sa palu mhm. alors que yow yaa ngi gën a rey sa bopp leur tamit fi mu toll nii tamit autorité yi en fait war nañ waxaat changer waat seen discours quand même parce que Euh, contexte bi moo changé Sénégal ku ne xam na ni nawet palu mooy am tey palu coïncider ak coronavirus bu moywul li ngay wax mooy pic bi ni crainte boo mooywul dina am dëgg la dëgg la en plus wax na ko nii sànq ba pare léegi géej gaa ngi fees dell mm-hmm. rassemblement yi te la benn affaire de femme da ngay gis auto police bi gaaree ne bu koo seen na ngeen ne ko eh, jàmbaar police a ngi fee de masque am leen njëkk yéegal wala mu détourné donc am nal koo xam ne ragal nañ ko bu bu ñu woon ku takkul masque ñu sanctionné la clando dangay dugg takkoo masque wala nga wàccee ko ñu jàpp borom clando mu fay mais yow mi takkul masque danaan la nga jënd masque dañ la war a sanctionné comme moom mm-hmm. parce que yow bu dee clando boo dugg wala taxi boo dugg takkoo masque ñu jàpp borom taxi bi wala borom clando bi déjà mm-hmm. yow noonu ngay continuer sa journée yëpp mm-hmm. sans nga takk masque mais bu dee foo dem hôpitaux yi tamit foo dugg maa ngi fa takku masque nga fa déjà boo takkul masque sax doo dugg ci hôpital donc nag nit ñi ñoo war a dama koo fàtte moo tax hôpital boo dugg jaaykatu masque mu ngi à côté. Mhm. damaa fàtte sama masque sama masque mu ngi sama saak da ngay xëy suba ba ngoon 8 ngay wax takk leen seen masque da ngay def sa distance nii. gis kenn ku ñëw toog ci digg bi ñu ne ko madame fii distance mu ne fii lay toog ba mu neex ma léegi il faut que yow personnel de santé bi nga génn ne ko madame jógal distance lañ wax takka sa masque saa yoo génnee di nga gis ku wàcce mënuma ci nooyi dama asma man dama naan la nga asma gudd fan moo gën nga corona wala leneen fekk la te jigéen bu ëmb danga war a protéger sa bopp comme protéger sa doom nee naa ne man booy ñëw hôpital bul wóolu kenn mm-hmm. gardien ba ci bunt ba jaaykatu ticket ba sage-femme bi médecin bi ba ni ngay génnee mm-hmm. boo yeggee sa kër summi sa yére yëpp teg bu la neexee sa nga sanguwaat sànni sa masque utaat leneen su ko defee yow am nga lu la protéger Euh, sëñ Basirou euh, sànq ma jigéen woo dafa am lu mu euh, dugg ci bu baax muy mu ni rassemblement yi booy xool plage yi dañoo fees dell alors que plage yooyu ñu koy feesal tey ay jeunes lan mm. jeunes yi ñooy feesal place deng alors que jeunes yooyu noonu ñoom tey ñoo waroon nekk le noyau de la lutte ñoom ñoo waroon mën a nekk ci digg xeex bi di mëne le combat puisque mag ñi ñoom mënatuñ ko tey taxawaayu ndaw ñooñu ci li nga xamante ni moo di xeex bi nan nga ko gisee effectivement avant muy ñëw xam nga dafa lu am solo dama koy tooñ souvent nit bu ñu nee dama asthme du takk masque je le dis que man ku ma ko ma ne ko yow yaa war a takk masque sax. je dis parce que dañuy ne ñi nga xam nañu ay maladies pulmonaires asthme ak yeneen yi mais ñooñu ce sont les personnes les plus exposées. ah oui moi je dis port du masque man avant là pour ma takkaloo masque c'était tout un problème mais je me imposé. parce que gëm naa ni que dañuy dox su ma duggee suñu kër xale yi ni ma bas da nga bëgg mas man leen dinaa protéger sama mais surtout naa leen propose parce que damay wër di dox rek. Mhm. donc beneen bi nga wax léegi xam nga tey ndaw ñi tey boo defee remarque ci biti mag ñi sax ñooy takk masque en général. Mhm. mag ñi ñoo gën a respecté. Mhm. jeunes yi duñ ko takk. dimanche terrain de foot fees na. plage yi feesaan na dell. génn ci guddi fees na de xam naa bois de bu ñu ko ubbi woon a d' autres am na fu muy toll. si on est en face de gens qui sont inconscients qui ne veulent pas respecter mbir mi. Mm. te ñu jàpp ni ñoom bu ñu ko respecté wul bu doon seen bopp lay yam rek ba amul problème. Mm. mais dañuy lor ñeneen foofu pour man que l' autorité prend ses prenne ses responsabilités. gis nga bi virus bi soog a ñëw les premiers arrêtés yi ñu jël mais nit sañu ta dox te takkul masque. Mm-hmm. parce que chaque fois tu yaa am na auto boo doon gis chaque fois dañ lay sanctionner moi je yi ma nekkal sama cage ma leen. kuñ ci jàpp ci corona bi teg koo masque ne m'appelez pas parce que du may intervenir. ah vraiment. je le dis mën naa intervenir mais jamonoy corona képp ku ñu police fekk ci koñ bi yóbbu la teg koo masque intervenir parce que aujourd'hui nga ne amoo masque wut nañ masque jox la takk ko. aujourd'hui ñu ngi ci plage yi di fees dell ñu ngi ci terrain de foot yi di fees dell donc il faudrait que ñu gën a conscientiser waa que tey ji bu ñu ne la tey on est à peut-être 152 cas tey 34 communautaires 49 en réanimation hmm. dama dama lire ñaari nit ci semaine bi kenn ki c'est l'ancien ministre euh, comment s'appelle Babou Wane si je ne me trompe l'ancien ministre conseil de Wade mais qui décrit l'ambiance dans les hôpitaux liir keneen koo xam ni il est passé par la réanimation mais bu lay expliquer ki dugg ci réanimation ni mu génne je me suis dit après la lecture de cet article est-ce que duñu def reportage génne nit ñi ki nekk réanimation lan lay dund parce que am na fooy toll dem dee ñu denc la sax mooy gën a yomb et aujourd'hui am nga possibilité doo dem réanimation bu ci yàlla ànd am nga possibilité doo tëdd fee mhm. mais takkal sa masque parce que tey kenn ku ci ne buggul lor waa këram te damay wax ni feebar la boo xam ne soo ko ki ngay njëkk tey mooy sa proche ki jege bu dee sa yaay da exposé bu dee sa papa da nga ko exposé bu dee mhm. sa maam da nga ko exposé xanaa kenn ci ñun bëgguñu nekk vecteur bi nga xam ne mooy rey suñu mbokk yi mhm. donc aujourd'hui les jeunes de manière générale il y a des jeunes conscients qui s'engagent mais jëlee majorité bi au niveau de Sénégal les gens seen seen yoon nekkul sax ci feebar bi lu leen neex boo leen koy wax sax ci mbedd bi monsieur Corona lañ lay woowee alors que aujourd'hui c'était à la jeunesse de se mobiliser comme un seul homme considérer que nous avons un ennemi commun et tey mobiliser wu benn quatre mois takk ceinture yi jëlee ko fi mais moo gën di continuer di vivre avec moom di moom te dund ak moom mettit la ñuy indil dund ak moom musiba la ñuy indil te ni mu ko waxee léegi peut Euh, kii bi mi ngi ñëw paludisme bi mais l' autre chose qu'on ne dit pas aux dans sa stratégie aujourd'hui di wàññi na kii test yi mm-hmm. aujourd'hui si l'état dafa diminuer ay testam alors que tey si ñi nga xam ne mooy paludisme ak suñu corona dafay xaw a nural mais ça devient aussi problématique mm. donc il y a beaucoup de gens damay wax souvent ni en par man damay wax sama xarit bu kenn wóolu kenn mm-hmm. parce que chacun d'entre nous est un potentiel porteur de cette maladie mm-hmm. donc la seule chose qu'on peut faire li ñu amaku su néew tey comme amaguñu feebar euh, garab bu koy faj mooy jël mesure mesure barrières yi takk sa masque distance sociale bi éviter di tal nuyoo éviter rassemblement yi wala boo dee ba mënoo ko wàññi mais au moins jëlal distance yi mais loolu nag kenn ku si ne yaay am fulla force de l'ordre bi ci mbedd bi am na ci part man mi nekk bërëb boo xam ne damay recevoir nit am naa ci part yaay ji nekk ci kër itam daf ci am part parce que moom moo war a fexe imposer moo ak papa ji. Hmm. ba xale yi ci kër gi respecté ko. Hmm. ki nekk ci mbedd mi tamit force de l'ordre bi comme bu génnee ci mbedd mi quand je veux dire à bul def li bu ko neexee mu ne ma tuye kii pour ma donner des ah mais am na ko ñu fal. moom mu am légitimité ñëw faire régner l'ordre. Mm-hmm. parce que foofu rek la ñuy toll tey wax nañu communiquer nañu malgré failles yi ñu mën a wax yépp mais il y une responsabilité individuelle de chacun d'entre mm-hmm. nous. et que tant que jëluñu ko en compte. Mm-hmm. cette maladie restera là te bu fi jógee. je je crains fort que yeneen maladies yi nga xam ne amoon nañ ci ay avancé au risque d'être mm-hmm. en retard encore. d'accord euh, Bassirou Samb ñu koy jaajëfal euh, tey coordonnateur dafa tardé waaye bon peut-être terrain bi la rek comme ñoom ci terrain bi tout le temps ñu ngi koy excuser retard bi bàyyi ko mu nuyoo moom Dame Ndiaye mooy coordonnateur alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction de oreilles de jeune ak wàllum PF sëñ bi Dame. ñu nuyu la. jërëjëf maa ngi lay fay di nuyu également euh, auditrice ak auditeurs yi ñuy déglu yëpp. Mhm. Euh, di jéggalu rek ci ci retard bi daf ñu fekkoon ñu nekk ci yeneen activité mhm. donc euh, mooy série d'initiative yi nga xamante ne ni jël nañ ko. justement pour parler de l'impact de la Covid-19 sur la santé de la reproduction des adolescents et mhm. loolu moo waral tey ñu xaw a ñëw en retard. également aussi di nuyu euh, madame la sage femme bi ma fi fekk. Mhm, soxna ma jigéen soxna ma jigéen. ak euh, Basirou Samb bi ma bokkal plateau bi tey. d'accord comme euh, prési yow teew nga lu ñu def lu dul am na ay jeunes yoo xamante ni tàllal na leen suñu micro waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moo di taxawaay bi nga xamante ni jeunes yi war nañ ko taxaw jëm ci. xeex bi ngir euh, Covid 19 jóge fi ñoom am na loo xamante ni wax nañ ko duñ def lu dem déglu jeunes yooyu te ñoom ñu leen di jaajëfal ñu di waa centre euh, ado bu nekk euh, Fass Gueule Tapée Colobane foofu lañ nekkee am na loo xamante ni wax nañ ko ci li nga xamante ni mooy yu ndaw ñi si xeex bi ñuy xeex Covid ñu déglu seen kàddu ñëwaat. jeunesse moo yor réew. Mhm. ñun ëllëg ñun ñoo war a diriger réew bi ñun ñoo war a teg jeunesse bi si yoon. Mhm. donc dañu wax a donner le bon exemple. waaw franchement man loolu laa gis gën a conscient. maanaam fi mu toll nii man dama jàpp ne jeunesse bi dafa am ay urgence yoo xam ne am nañ ko maanaam urgence yooyu nañ ci jëm. waaw vu que ne dañ toll ci Covid. wax waxaat du bëri wax ma rappeler rek maanaam distanciation physique bi ba tey nañ ko respecté muy un mètre. Mm. nañu éviter discrimination bi. surtout ak stigmatisation bi. coronavirus feebar la boo xam ne nit lay dal jommul kenn dalay dal nga dem gaay faj la nga wër dem toog sa kër. Mm. xale yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi te jàngeetuñu école tëjul. Mm. magum jëm bu toogee trois mois xoolul kay bu delloo école day am problème foofu bu ñu amee mag joo xam ne wala oncle boo xam ne mun na leen forcer sax si le faut pour xoolaat kay sa ngoon da ciy baax. Mm-hmm. bu loolu yëpp weesoo maanaam bu ñu respecté mesures yu waa kër docteur yëpp wax waa ministère de la santé yëpp ñu respecté à la lettre ku ci ti doon saa si yeewoo na ñaanal boppam ñaanal ñëpp. Mm. ndax feebar bi ñu nit yi la jaaxal mais jaaxalul yàlla. Mm. xëy na bu ñu boole ko ay ñaan yàlla dinañ ci musal maa ngi déglu ci benn son xaw ma kan moo ko doon wax ci ci ci ci rappeurs yi nee na Covid mënoon na nekk sauveur de l'humanité mais dégâts yi mu def rek ko yàqal. Hmm. Covid bi jàngal nañu dañu war a set. Hmm. Covid bi jàngal nañu taxawaalu bu bëri baaxul. baaxul jàngal nañu lu amul solo amul solo génn ca ba hmm. muy moom rek. non mais lu bëri lu bëri la changé. changé na lu bëri. léegi nag après Covid bi comportement boobu laa bëgg Sénégalais yi adopté rawatina nag jeunesse bi. Euh, pour wax la ni que sensibilisation bi jàllul bu baax parce que stigmatisation dafa am trop trop parce que nit mën na ñëw jël si nit sa si koñ bi euh, nekk daf dañ koy testé nax am na Covid ou amu ko même bu dellu siwee nit ñi dangay gis nu ñu koy dawee wala naan kër gii la amoon donc stigmatisation boobu noonu tant que arrêté wul rek solution du am. Mmh. parce que du question que nit dafa am corona rek da nga ko war a daw non mën nga jëlee ci moom laajte ko lan moo la daloon loo doon éviter dugg na fi génn fële mais stigmatisation bi c'est trop. Mmh. loolu dañ ko war a arrêter problème majeur bi loolu la stigmatisation ak relâchement bi. Hmm. parce que bu nit takk masque sax dangay ngay sonn. Hmm. des fois nga dugg ci kër di sensibiliser nga ne nit ki an sa masque fekk moo ko fas ci sëram wala moo ko dugal ci ay poche. Hmm. te loolu nekkul utilité masque yi donc il faut ku nekk def effort individuel man du ma blâmer état état lu mu mën mu ngi koy def donc du coup citoyen bu nekk da nga war a fournir effort personnel. pour liggéey bi mën a yomb. kon mu ngoog Dame Ndiaye ay jeunes lan yoo xamante ne ñoom it si SRAJ si la ñuy yëngu euh, di sensibiliser seen i ndaw jeunes ci taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko taxaw jëm ci xeex bi dégg nga seen kàddu ban commentaire nga ciy def. Euh, jërëjëf di di di rafetlu reportage bi nga xamante ne ni def nañ ko ci ci émission bi euh, te li génn ci waxtaanu ndaw ñi. je pense que loolu de plus en plus gars yi ñu ngi ciy continuer di sensibiliser nit ñi. mooy ñu fexe ba éviter la stigmatisation. surtout parce que euh, jàngoro bi du jàngoro boo xamante ne ni ku ko am dañ la war a beddi ci société bi. Mm-hmm. mais jàngoro la boo xamante ne ni ku ko am. respecter mesures yi nga xamante ne ni moom la ministère yi édicté mm-hmm. je pense que di nga mën a mucc muccaale également aussi ñi nga ñi nga dëkkal ak ñi nga dendal mm-hmm. alors beneen élément bi am importance mooy revenir na aussi sur euh, la communication la sensibilisation mm-hmm. parce que euh, dafa am une très grande différence entre entre ces deux ces de ces deux concepts là. Mm. sensibilisation bi li tax ñu war ko gën a gën a renforcer aujourd'hui mooy comme ni ko Bassirou waxee sànq maa ngi koy déglu ci yoon bi bi may ñëw mu ne tey port di masque bi mën nañu muccal ci mbas bi ñu génne ko fii Sénégal. Mm. mais il faudrait que également aussi que ñu insister si nit ñi ne leen que kat port du masque bi c'est une obligation. du loo xamante ne nii dafa la war a neex nga takk ko wala neexu la doo ko takk mais loo xamante ne nii lu war la parce que gis nañ ne de plus en plus jàngoro bi mu ngi commencé di jël di jël di jël benn ampleur ba nga xamante ne nii buñ demee ba ci kanam tuuti dootuñu ko mën a maîtriser. Mhm. gis nañ de jour en jour aussi nombre de décès yi mu ngi augmenté wu. Mhm. gis nañ également aussi de jour en jour aussi nombre de cas graves yi dafay augmenté wu. Mhm. te cas yi buy augmenté wu ça veut que ne nañu xaar chaque jour ñu ñuy annoncé. ay cas de décès aussi. donc je pense que communication bi également dafa war a dem ci foofu noonu. ne leen tey jii euh, li ñu jàppoon bu njëkk ba ne jàngoro bi du ñëw Afrique lañ doon wax parce que Afrique dafa tàng jàngoro bi du du mënul mënul rey nit ku ñuul parce que nit ku ñuul tàmm na di di di di di di jànkoonte ak feebar yu gën a garaaw yooyu jàngoro bi du dal ndaw ñi parce que ndaw ñi kat gis nañ ne ñoom am nañu kàttan pour mën a supporter loolu te loolu bi ñu demee ba ci biir xam nañ ne loolu yëpp amatul mhm. ndax de plus en plus ñu ngi gis jàngoro bi di rey ña nga xamante ne nii ay jeunes lañu. gis nañu de plus en plus cas yi ñuy ñuy wax par jour dina ci am benn pour pourcentage ba nga xamante ne nii ay ndaw lay doon. Hmm. je pense que de plus en plus foofu la ñu war a accès la communication ne leen feebar bi du feebar boo xamante ne nii rek comme niñ koy waxee ci mag ñi la gën a aay mais aussi dafay faagaagal ndaw ñi te loolu moo war a tax ndaw ñi ñu war leen a sensibiliser. ñu respecter les mesure édictées par le ministère de la santé. ci ci ci sensibilisation boobu daam ndaw ñi gis nañ bu ñu duggee ci SRAJ yi bari na lu ñuy fréquenter centre ado yi mais mm-hmm. malheureusement centre ado yooyu est-ce que doy na tey pour ndaw ñi buñ demee di uti service yi quand même ñu mën ci euh, am occasion ngir sensibiliser sensibiliser leen ci Covid bi mais malheureusement est-ce que tamit centre yooyu existé na ba mën a sensibiliser ndaw yi. waa centre conseil ado yi boo seetloo Sénégal. Euh, tey pratiquement bu ñu xoolee centre conseil ado yi nga xamante ne nii dafa nekk ci magistère ministère de la jeunesse que ils sont en tout cas présents un peu partout au Sénégal. Mm-hmm. te gis nañ ne seen périéducateurs yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci ci centre conseil yooyu renforcer nañu seen capacité pour que kat seeni moromu ndaw ñi bu ñu ñëwee ñu mën a waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. malheureusement nag. centre conseil ado yooyu noonu ci département yi rek lañ koy gis boo demee ci milliers yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk milliers yi gën a sori milieu yi gën a reculé. Mhm. doo fa fekk centre conseil ado yooyu noonu. et je pense loolu mooy effort bi nga xamante ne nii euh, le ministère de la santé war na ko def parce que moom également aussi mu ngi nekk di aménager ay espaces dédiés aux adolescents et jeunes. Mhm. au niveau des postes. au niveau des districts de santé. Mhm. te loolu phase pilote la ñu nekk bareegul Sénégal mais je pense que bu ñu demee ba post yëpp ak district yëpp. am ay espace conviviaux pour les adolescents et jeunes mhm. donc je pense que xale yi bu ñu fa mënee bu ñu fa demee également aussi dinañ leen jox bépp information buy toucher ci seen wàllum wàllum wér-gu-yaram. li mhm. fàttali rek ba tey mbokk yi yéen ngi topp ci seen rajo Afia FM ñuy waxtaanee ba tey euh, njeexitalu mbas mi ci wàllum santé de la reproduction des ados et des jeunes ak wàllum planification familiale euh, ma jigéen su ma ñëwaatee ak yow ñu wax ci wàllum planification familiale parce que ku ne xam na ne ay jamono euh, frontières yi eh, tëjoon nañ ko donc planification familiale dafa laaj ay ay ay ay méthodes yu bari la mu laaj aussi ay garab est-ce benn instant ay euh, jafe-jafe ngir euh, garab yooyu la vu que ni frontière yi ko tëjoon dara duggul dara génnu. waaw maam Sey. Mhm. Euh, planification familiale dafa bëri ay ay kii ay méthode mhm. am na si méthode yoo xam ne chaque trois mois da ngay ñëw nga jël si sa maa nga dem. Mhm. am na si méthode yoo xam ne nag bu dee longue durée yi méthode bi ñu la defal mu ngeeg yow rendez-vous rek ngay respecté même su fekkente ne da ngaa raté rendez-vous benn temps. contrôle bi nga war a def parce que dañoo war a xool sa poids de am poids dañ la war a waxtaan ak yow defal la counseling nga dindi ko. Mm-hmm. bu fekkee danga am tension moom dañ koy dindi moom. parce que am méthode planning yëpp à part bi. amul mm-hmm. benn bu ci ànd ak tension. Mm-hmm. bu yéeg dañuy dindi temps dañ koy dindi bàyyi nga dem ci médecin bi mu continuer traitement mais nag temps yi amoon na. rupture am bu dee pilule amoon na rupture dépo bi moom actuellement dafa dem rupture parce que amul. sayana moo am mooy beneen façon dépôt bi ñuy def si suuf cutané hmm. boobu moo am hmm. te boobu benn instant tam demoon na rupture tamit demoon na rupture pharmacie dañ lay bindal nga dem jënd pharmacie après nga ñëw ñu defal la mais am na benn instant boo xam day am impact nag day am dem paracétamol mii moo dem rupture ma sama yeneen garab donc loolu moom c'était à prévoir. donc amoon na ay ay ay ay ay euh, conséquences yoo xamante ni yéen yéen a ngi ko doon gis au niveau mm-hmm. des centre yoo mm-hmm. xamante ni mbas mi moo koy indi woon par rapport ak euh, santé de la reproduction. waaw waaw parce que même garab yi nga xam ne dañ koy soxla si hôpital bi am na yoo xam ne dafa manqué woon. Mm-hmm. waaw mais dem nañ benn instant manqué na mais après benn instant ñëwaat na. waaw mais loolu moom c'était très normal. mais kon grossesse rapprochée yi mën na jàpp ni. instant yi na non non bu fekkente ne par rapport ak euh, produit planning bi. non grossesse rapprochée yi moom du cause am grossesse rapprochée kay da ngay def sa planning war a ñëw hôpital. nga mhm. ragal a dem. Mhm. demoo wala nga toog sa kër di xaar leneen fekk la ci mais nga ñëw hôpital ñu ne la produit bi amul demal toog sa kër non non moom kay su amul dinañ rabattre ci farmasi mhm. su amul ñu defal la. référence ne la demal structure tel boo demee mu defal la. mais produit moom manqué wul à tel point boo xam ne da ngay ñëw ñu ne la ah piqûre bi amul tey demal ba lundi wala demal ba weer bi dee non dañ naan la kay demal beneen hôpital bi mu defal la. wala mhm. ñu ne la demal jënd ko pharmacie. Mhm. te d'habitude femme yi boo leen nee sax dafa jeex dañ naan bindal ma ma jënd pharmacie ñu bindal la nga jënd pharmacie ñu defal la. Mhm. mais nag ñi nga xam ne nag ñu ngi nef wala di for grossesse te fekk bëgguñu ko parce que jigéen mun nga nekk ci biir néegu sëy for grossesse boo bëggul. ñooñu nag peut-être cause bi leneen la dangay ngay ragal a dem hôpital wala ñeen ñi seen jëkkër sax ñoo naan la bul dem hôpital. parce que dañuy ragal bu ñu demee lan lañ fay fekk wala mën nañ fa jëlaale dara te fekk tel n'est pas le cas. Mhm. sànq mu koy wax ci affaire masque yi mais maam say takk masque baax na. mais fóot masque moo ëpp solo ak changer masque. Mm-hmm. surtout dañuy gis ku takk masque chirurgical boo xam ne mën na ko jural sax beneen feebar muy furux mm-hmm. furuxi bakket bu fekk na masque bi dafa tilim. Mm-hmm. soo ko waxee madame sa masque bi yàgg na mu ne la masque bi de génn ba génn moo may booleeg moom parce que am na yoo xam ne tam mënoon nit ki takkal masque ba pare masque bi setul. masque dañ ko war a fóot ba mu set tàngal ndox def si biir boo ko mënee paase nga paase ko am sa ñaari masque ma nee naa ne nu ñuy def dosu noonu la ñu war a def masque dosu du tilim. warul tilim warul xasan yaram warul xeeñ. Mm-hmm. masque tamit warul tilim warul xasan bakken. Mm-hmm. dañoo war a conscientiser nit ñi ñuy fóot seen masque yi. commencé ko ci chauffeur car rapide mm-hmm. parce que je n'ai rien contre ñoom mu ngi yi da ngay gis ay masque yoo xam ne non da bëgg boo yoree sax chirurgical sa sac da nga koy génnee may ko nit ki ne ko sëñ bi masque ngi mais du tax mu dindi bi mu takk de te sax du ko takk sax si put bi la koy lonk ni am na yoo xam ne tamit il ñu. ñu waxtaan ak nit ñi nag ñu xam ne nii voilà mooy communication bi la moo des bi ñu ne la masque da koy fóot ba mu set di ko changer. Mhm. ci la lay ëppalee njëriñ sax. Mhm. Euh, Bas communication boobu yéen rele communautaire yi est-ce que du yéen foofu amoo leen fa faay bu ñu gisee que ni yéen a ngi joxe mais gars yi duñ takk wala bu ngeen joxee gars yi sànni est-ce que tamit gisoo leen tuuti échec yéen ci seen liggéey. waaw xam xam nga boo jëlee ah, je te parle pas relais mais acteur communautaire de manière générale. xam ne relais yi bàjjeni ñëpp. ñu ngi def un travail remarquable te ñu ci ëpp ci ñoom il travaille ci seeni propre moyen seeni moyen la ñuy génn seeni dajale moi je dis quand quand la maladie est apparue je me suis dit c'est vrai dinañ joxe état day joxe mais comme am na mën nañu def ay masque tu sujet dugg fëgg ci yenn kër yi maire seen seen yi ngeen deñ jox leen ma ko ñu doxe ko ñu ñaaw ko def ko ay masque jox ko nit ñi donc ñu ci baree bari ci acteurs communautaires yi noonu la ñuy fonctionner maintenant di nga am parfois apport communes yi indi état peut-être rarement lay ñëw maintenant li ci am solo mooy xam nga damay wax souvent ni l' acteur communautaire n' au niveau politique fi ñu jël décision yi. Mm-hmm. moom mi ngi ci niveau communautaire bi. mais su fekkee entre kiy jël décision bi le niveau politique ak ki nekk niveau opérationnel bi amul une certaine coordination foofu la problème bi ne. Mm-hmm. parce que da ngay nekk sur le terrain di sensibiliser nit ñu ne ah, bi wax na nangam président wax na nangam waa direction wax nañ nangam. alors que la ñuy wax peut-être bu ñu bu ñu consulter les acteurs communautaires dina am solo parce que les spécialistes de la santé. am na foo xam ne ñoo ko xam ñoo ko mën mais la ñuy wax ñoom le comité le commissaire euh, nu mu tuddati sax docteur Seydi su amee information bu mu bëgg a jàllale mais il faut ñu jox ko acteurs communautaires yi ñoom ñoo nekk a la base bu dee sama mbokk séeréer bi nekk ci dëkk ba mën ko jàllale bu dee joolaa bu dee ki dëkk ci koñ bi mu xam naka la koy mettre à la portée du citoyen bi nga xamul bi nga xam ni amul accessibilité ci message codé bi. maintenant difficulté bi loolu la mooy amul souvent cette coordination les gens parlent de, de, de, du soutien des acteurs communautaires mais loolu. semaine passée j'ai vu ministre de la santé ki fait le tour des des des forages fi ñuy jaay xar yëpp séddale fa ay masques ma ne ko may action bi waroon na jiitu mooy tey mobilisé les acteurs communautaires ñu xam ne tey période tabaski daral yi day fees ñu mën ko fa jiitu wax ak ña fay jaay su joxee masque ba pare organiser waat la ñu delluwaat sur place mais ñoom li ñuy def mooy souvent dama ne c'est des action ponctuelles période tabaski la daral lii day fees marché yi day fees est-ce pas am des actions. concrètes yoo xam ne dañ koy destiné ci espace yooyu nga xam ne dafay daje nit ñi. Mm-hmm. moo tax acteurs communautaires yi ils sont de se débrouiller soo jëlee district nord les gens depuis lundi ñu ngi waat acteurs communautaires yi ñu ngi leen di renforcer sur le terrain mais il faudrait que le décideur. communication bi muy jàllale mu xalaat acteurs communautaires parce que soo nee par exemple je prends un exemple apprenons à vivre avec le virus. Mm-hmm. sans kon daal léegi loo neex waaye na def xale yi dañuy tooñ sax naan waaw nañu def fëlaale ba mu neex loolu en fait noonu lañ koy fowee alors que tey pour man c'était un moment de dire gars Sénégal kat peut-être peut-être mënuñu ko wax. attanatul économiquement tëju bi attenatu ko. yenn li mu doon def yu bare bare attanitu ko li des mooy tey jii on va ouvrir pour que sunu économie dox mais il faudrait que nit ñi mën a respecter yoon masque takk ko tey lépp a ba mu des masque. damay dégg le sous-préfet des parcelles dafa doon wax ni tant que daaneelu ñu le commerce di des masques. Mhm. ce qui lambul. tant que yi lambul. Mhm. ba léegi des na. donc tey il faudrait que nit ñi masque bi yomb na tey wutal sa boo mënee ñetti masque mën nga ko am boo paree fóotal parce que du ñëpp am accès ci masque euh, euh, N95 chirurgical ak yooyu mais au moins y a des masques qui sont à notre portée mais naka la ñu ko war a utiliser. naka la ñu ko war a porter à un moment donné j'avais vu les filles commencer yëre bu ñu def def ci masque ma ne ah kii kat mode bu baax la il faut applaudir parce su fekkee dem nañ def ko mode di ko boole seen yére yi dina rafet. Mm-hmm. mais à un gisatoo ko. Mm-hmm. donc il faudrait que ñu gën a xoolaat la communication et peut-être avec l'apport de la société civile dina mën a tax affaire bi gën dox parce que peut-être ñoom dinañ comprendre les réalités du terrain pour que ñu gën a la communication. Mm-hmm. parce que la maladie est là. si vous ah 3 4. 3 décès 4 décès ngay am par jour. Mhm. réanimation boo ci daan dégg benn daan nga toog doo ko dégg mais léegi on total tey par exemple 49 personnes en réanimation. j'ai discuté avec un ami ki bu xam ne agent croix la bu nekk au niveau de engrais je lui dis mais est ce que seen foofu mi ngi wàññeeku mais mënu ma non nit ñi ñu ngi gën a bari. ma ne ko yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci en contact des malades. Mhm. yéen a war a wax expliquer nit ñi. ña nekk foofa lan la ñuy daj parce que aujourd'hui les personnes asymptomatiques foofu la ñu leen di jël. yaa que hmm. les personnes symptomatiques wala troisième âge bi la ñuy hospitaliser au niveau des hôpitaux. Hmm. donc tout ko. da keroog damay waxtaan benn sama benn xarit mu ma mu ni ma kaay xool tey eh, test yi on a fait de 500 tests ay 40 personnes am gis nga li ma la doon wax état day politique tey wàññi nañu ni mu koy xalaate hmm. alors que xamul ni l' état a changé de stratégie. mooy que aujourd'hui jëlatul test pour tous mais aujourd'hui dafa am un groupe bien ciblé boo xam ñoom lay testé hmm. donc pour te dire que ils sont toujours dans des considérations état day politique bu test bi wàññee ñu ne état ko wàññi hmm. bu yokkoo ñu ne ñoom ñoo ko yokk donc d'où l'importance d'impliquer d'abord les acteurs communautaires que ce soit relais bàjjenu gox OCB. Mhm. société civile ñëpp boole seen doole. pour ñu songu feebar bi mu jóge fi mhm. euh, di fàttali mbokk yi rek ba tey ñeen ñuy suivre seen rajo Afia FM 93.0 ñuy waxtaanee njeexitalu mbas mi ci euh, wàllum SRAJ maanaam santé de la reproduction des jeunes et des ados ak wàllum planification familiale si wàllu PF sànq euh, soxna ma jigéen am na lu am solo lum ci wax ba ñëw sax sëñ daam ci rupture bi nga xamante ni amoon na uh, ci ci ci yenn garab sànq am na mel ni loo ci bëggoon indi ci ci rupture yooyu. absolument dama dama pour confirmer li muy wax rek. Mm-hmm. démb dañu nekkoon ak uh, ay partenaires uh, ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu VIH bi mooy acteurs communautaires yi ci nekk yëpp. mais également aussi revendication bi benn revendication la mooy la rupture des médicament te ñu jàpp ne. dafa am feebar ya nga xamante ne nii rupture mën na am ñu koy négocier naan lii ça peut attendre garaawul métitu bopp la parfois nga dem sa kër ñu baxalal la ay reen ne la naanal garaawul wala sa yaram tàng mais ñi nga xamante ne nii dañu am jàngoro yu ci mel ni VIH ñooñu mënuñu toog sans pour ñu jël seeni garab. donc démb loolu lañ doon discuter mu nekk benn situation ba nga xamante ne nii à la yow sax da lay tiital yow parce que da nga naan ñun fan la ñu jëm. te rupture boobu laalul kese produit contraceptif yi laalul kese ñi nga xamante ne nii c'est des PVVIH mooy les personnes vivant avec les VIH. Mm-hmm. les avec le VIH. mais dafa dem ba laal ci yeneen jàngoro ya nga xamante ne nii c'est des maladies chroniques yu am ay rupture mais souvent doo dégg nit ñi di ci wax. Mm-hmm. parce que tout simplement ñun ñi nga xamante ne nii ñu ngi ci réponse su SRAJ wala ñu nekk ci réponse su ñu ngi communiquer. mais ñi nga xamante ni nii dañu am ci yeneen jàngoro yi nga xamante ni c'est des maladies chroniques depuis la fermeture des frontières ba léegi mënatuñu jot seen médicaments yi loolu aussi beneen problème la boo xamante ne nii Covid bi am na ko ci ci ci ci wàllum wérgu yaram tey aussi boo ñëwee ci wàllum SRAJ bi toujours ci contact yi toujours ci impact yi. Mm-hmm. di nga gis ne jeunes yi ni ñu daan demee léegi ci centre de santé yi demeetul noonu. Mm-hmm. demeetul noonu. da ngay gis ne par exemple nit ki da nga koy jox consultation nataal yi mooy CPN yi. Mhm. souvent mu yaramam di metti wala muy tàng nga ne ko demal hôpital mu ne la hôpital kat du fa dem parce que te ma dem fa ñu ne ma da am. coronavirus nga gis ku waroon a yóbbu aussi doomam vaccination wala moom mu amoon des consultations nataal mhm. Covid bi tamit tax na ñu ci bëri seen rendez-vous yi. niñ ko waroon a respecté dootuñ ko respecté parce que du ñu tiit yaakaar nañ ne hôpital yi léegi foofa dem rek buñ la xoolee sa yaram tàng wala ñu ne la sa odeur dafa xaw ma sa odorat dafa xaw a changé rek ñu ne la euh, coronavirus la loolu tamit moo gën a yokk a tax nit ñi dematuñu ci ci ci ci sante de santé yi loolu mooy tax keroog ma koy rappelé ne fi mu toll nii kat am na lu am solo la nga xam ne ministère bi mu ngi koy def mooy mu ngi commencé di améliorer la communication mooy que bu paree ci communiqué dina ne ko amoon rendez-vous na nga dem ci sa rendez-vous ku waroon dem vacciné wu na dem def sa vaccination donc loolu malgré ñu ngi ciy communiquer mais ba léegi boo laajee fajkat yi dinañ la kat jafe-jafe la la ba léegi boo xam ne ñoom dañ koy rencontré ci seen est-ce que du ñoom euh, yi nga xamante ni ñoo nekk si wàllum santé du dañoo gis ni ah, lu lii lu concret la mbir yi kat mi ngi commencé def ravage mi ngi mi ngi lor euh, moo tax ñu yokk seen communication est-ce que mbir yamati na rek ci wax parce que dem nañ ba nit ñi ñu ngi koy dund ah parce que boo yóbbuwul sa doom bu ñàkku ji ma jigéen am na lu ko mën a indi lu lu mu ko mën a indil mm-hmm. yow mii jigéen ni wérul boo demul sa consultation pré wala post natal am na lu mu la mën a indil est-ce que yéen au niveau des centres yéen yi ngi dund loolu gis ni kat kii rendez-vous bi mu raté moo ko jural lii waa loolu du ñàkk maam see loolu du ñàkk parce que nit comme ni mu ko waxee sànq am na ñoo xam ne dañoo am ay maladie chronique nga xam ne yow chaque hôpital chaque weer da war a dem hôpital wala chaque 15 jours war a dem hôpital mm-hmm. contrôler sa tension wala da nga dem hôpital gisanteeg sa médecin mm-hmm. nga ne garaaw ma toog toog bi ngay toog mën na mm-hmm. wala nga am rendez-vous soit di nga ñëw hôpital jël sa ñetti doom yi lay aar ci sibiru ñëwoo nga ne ah comme ñetti doom rek la garaawul mais ñetti doom la garaawul boobu mën na indi siburu siburu boobu am na loraange bu muy indi ci xale bi donc man dama ne ku nekk rek peut dañ ko dul dañoo comprendre mais ñun tam am nañ ci part de responsabilité parce que ñun tam ñoo war a wax ak ñoom. Mhm. ñu ngi wax ak ñoom parce que affaire yi naxtaan la rek nit ki li muy ragal ba bañ a ñëw hôpital moom moo ko xam mais soo naxtaanee ak moom expliqué ko bu boobaa day sawar a ñëw te bu boobaa wér gu yaramam la. wérgu yaramu doomam la sànq dafa wax si ba tudd waa Croix-Rouge sama naataangoo yi man ancienne Croix-Rouge la mhm. ñoom Croix-Rouge ñu ngi def liggéey bu am solo. Mhm. parce que si hôtel yi mu ne wax ni ñoom fa lañ ne. mu nekk nag ay xale ñoo fa nekk mais tamit ñuy risqué tamit. absolument ñuy risqué ay garde la ñuy def 72 heures fi mu toll nii am na si ñoo xam ne tabaski duñu tabaskee seen kër. absolument te wàccuwaay bañ leen war a jox nem docteur. docteur yi lañ joxul seen wàccuwaay masama ñoom ñooñu waa Croix Rouge. Mm-hmm. te genn waal gi yëpp ay élèves lañ. ay jeunes lañ ay élèves lañ ñu dégourdi nag. Mm-hmm. instant ñu ngi waajal campagne de sensibilisation porte à porte. temps yi ñoo ñoon jël seen propre moyen avant ministère bi di joxe ay gel ak di maye ay masque lool tam lu baax la mhm. parce que nit bu fëggee sa buntu ne la yaay kat mbirum feebar bi léegi est-ce que sax booy fëgg sa buntu dinañ nangu bàyyi nga fëgg a dugg surtout loolu mais même bu dee dama da nga ne même bu dee da ngay communiquer taxaw ci porte bi sax wax ak nit ki na dégg li ngay wax mu recevoir li ngay ba mu accepté ko su ko defee moom loolu noonu yow sa njëriñ la mm-hmm. njëriñam la moom mm-hmm. yow tamit sa njëriñ la mm-hmm. parce que feebar bi bu fa jógee am na ñu si bëri ñoo xam ne seen liggéey yàqu na si ñenn ñi liggéeyatuñu parce que kii bu sa borom kër liggéeyatul yow mii nekk jigéen bu wérul amoo loo daggee ticket doo ñëw hôpital doo ñëw hôpital parce que naan sama jëkkër amul xaalis doo def écho doo def analyse soo waree wasin ndax di nga ñemee dem hôpital parce que soo demee da nga naan dinañ hôpital moom doo wasin te doo fay donc dina am foo xam ne il faut social moo fay dox sociale moo fay dox personnel de santé yi gaa dee nañ hôpital yi temps yi bu Covid bi jot gënoon a songu nit ñi yi dañu doon daw dëgg la muy wàññeeku mais instant bi sànq tudd na wax na ba tudd communication instant bi malaat amul yow su ma gisee ñetti nit ñu toog sa rang sama bureau. dama naan ñetti nit yi kat dinaa def tout ba jël leen parce que malade amul hmm. ñetti pepp yu mu lay indil mën na dugg ci biir kii bi garab yi doxatul pharmacie bi doxatul parce que amatul dara CMU hmm. bi fayatuñ pharmacie amatul dara donc hôpital bi tamit am na ay personnel yu ne foofu dañ leen war a fay hmm. public bi laay wax am na personnel yu ne foofu dañ leen war a fay ay père de famille nañ ay mère de famille nañ donc bu rentrée d'argent amulee kon nan la ñuy def donc hôpital ku dugg ne nga ñëw hôpital nekk ba sax di nga raxasu jëndal masque lañ la nga ñëw toog soo toogee la seet as tuut gi dugg foofu au moins dina am kii mais bu dee yow du premier au 31 amoo malade. Hmm. wala ay 10 malade nga am xam nga loolu mën a yor structure bu yàggee hmm. hôpital bi day daanu. Hmm. te comité yi seen doole demeewul noonu. donc chaque fois yéen a ngi déplorer seen manque de matériel ak euh, yu ni mel. loolu moom du si ñàkk moom mais li nga am nga jëm ci liggéey as malade yi nga même bu dee 20 yu fidèle nga jëm leen a téye conscientiser leen ba nga xam ne suba bu seen rendez-vous jotee ñoom dinañ ñeme ñëw hôpital. Mhm. mais bu nit ki bu ragalee ñëw hôpital rek am na lu tax. mais bu ñëwee gis ne chaise bi ngay toog yow bureau baa ngi chaise baa ngi da ngay jël chaise bi yóbbu ko nële. Mhm. distance. Mhm. mais moom bu duggee reflex lay doon chaise bi lay xëcc ci yow. am na noo koy waxee mu delloowaat chaise bi noonu comprendre nga donc lépp communication la ba nii ba tey da ngay gis ku ñëw chaise ne seen bi dafa sori. nga ne ko ah bi dafa sori mais distance lañuy wax affaire yi muy door a comprendre. mais est-ce que ñoom ñëpp acteurs sanitaires yëpp ñooy jël le temps d'expliquer clairement euh, patient yi lan moo war a lii lii euh, cas de situation bi lii nga war a def est-ce que tamit yéen ngi jël temps boobu pour waxtaan ak patient yi. waaw léegi xam nga maam say nga xëy cinquante personnes soixante personnes toog di la xaar. yow da nga war a profité si loolu sa def sa benn causerie bu ndaw même bu hmm. fekkente ne personnel de santé bi sage-femme bi médecin bi infirmier mënu def causerie bi hmm. am na ay bàjjenu gox am na ay relais hmm. ñooñu mën nañ profité foofu def causerie te femme yi instant boobu noonu sooy wax ak ñoom dañuy accepter li ngay wax dañ lay déglu dinañ la dégg yow di nga si jëlee ñoom bu ñu demee seen kër yi ñoom tam ñooy doon relais yi parce que message bi nga leen jox ñoom bu ñu demee ñoom message boobu dañ naan ah hôpital kat lii lañ parce que ba tey nii am na ñoo xam ne gëmuñu ko mhm. hôpital kat lii ak lii lañ wax hôpital lii ak lii lañ wax su ko mhm. defee ñoom man mën naa ne même marché booy dem yóbbaale sa masque même boo jógee marché boo ñëwee su sa yére yi nga soloon nga raxasu lu ngay def nga door ko def bu dee dangay ngay nàmpal nga raxasu wala nga sanguwaat xëppoo ndox sax balaa ngay laal sa doom mm-hmm. même bu dee day jooy mm-hmm. parce que yow xamoo sa yaram lan moo si nekk mm-hmm. donc yow dangaa war a protéger sa bopp yow mi génn protégé sa tuut tànk wala nga protégé yow ñi nga dëkkal kon mu mel ni Bassirou ñoom euh, personnel sanitaire bi yéen nit da ngeen di liggéey en collaboration parce que communication bi ngeen di jàllale ñoom ñoo koy yombalal absolument et puis ñu rendre leen que dama Euh, mbir bu taxawee da ngay xool ñi cay liggéey tey bu dee guerre la ñu nekk je pense que ñoom ñooy soldats yi nga xam ne ñoo ni ñuy màggale soldats yi nga xam ne ñooy guerre bu bu dëkk di taxaw tey noonu lañ leen war rendre hommage parce que ils travaillent au risque de leur vie donc li ci am solo rek mooy ñu liggéey ak ñoom en tout cas ñun fi ñu féete du ñu umpante ñi nga xam ne ñooy agent de santé yi mm. lépp lu ñuy def bu ñu amee lu ñu jaaxal dinañ leen woo suñu amee lu ñu bëgg xam dinañ leen woo parce que nag mbir boo ciy wax da nga koy laaj koo xam tey bu ma bëggee wax ci média mais su ma leen laaju yéen boo xefee dinaa wax musiba te surtout loo xam ne nag nit digg mbirum dund la ak dee boo ciy wax danga koy laaj ñu ko xam moo tax ñun ak ñoom moom réeroo wuñ acteur communautaire boo gis il travaille à côté des de santé. waa jërëjëf di leen remercier di euh, remercier aussi euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon plateau bi di wax ne rek ñu ngi continuer toujours suñu initiative yi nga xam ne dañu ko def dans le cadre de notre réponse par rapport à la lutte contre la COVID-19 merci beaucoup maam Sey. di ko jaajëfal moom euh, Dame Ndiaye euh, di euh, coordonnateur alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction des ados et des jeunes ak PF Basirou Samb di acteur communautaire yow it ñu jaajëfal la si teewaay bi waxtaan bi am na solo soxna ma jigéen yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jégal bu baax si dérangement bi wax dëgg yàlla waxtaan bi doyul peut-être dinañ ko mottali ci yeneen yi jotaay rendez-vous si beneen émission incha allah. kuréelu ndaw ñi ci wàllum santé de la reproduction ak planification familiale ak rajo Afia FM ñoo leen di may biile émission ñu fas yéene ci nag waxtaanee njeexitalu mbas mi ci wàllu santé de la reproduction ndaw ñi Mame Saye Thiam Seck dina ci dalal Dame Ndiaye di coordinateur ANJ SRAJ Bassirou Samb di ab relais communautaire waaye itam ma jigéen Ndiaye di sage femme ci Afia FM 93 point 0. wax na ñëpp jóg ñu daan ko mën naa ne xale